est-ce góor mën na takk jabar joo xamante ni jigéen joo xamante ni mës na sekk ak moom dara ñu naan waaw mës daal. waaw euh, seq ak jigéen te takkoo ko daganut takk nag dafa dagan kon ñoom ñaar bokkuñu lu ñuy dox seq ak jigéen te takkoo ko daganut. takk dafa dagan léegi nag li araam munta araamal li dagan kon bu ñu wax ne nañ si yëq door a takk loolu daganut nañ takk takk dagan na nañ si yëq te takk amul araam na kon ñaari yëf la séq te takkoo daganut takk dafa dagan li araam munta araamal li dagan loolu ñuy jàngal usol ñoo koy wax kon ñoom ñaar bokkul lañuy dox euh, ànd ak jigéen te koo ko daganul loolu daganul léegi nag takk nag dafa dagan kon li ngeen def nii te daganul munta araamal lee dagan kon bu ma bu ma déggee ci wax bu gën a simple moom mooy que ni tey boo sekk ak jigéen sax mën nga koo takk du man ku seq ak jigéen mën nga koo takk ku seq jigéen dama ne affaire bu du ndax mën ngaa takk ak mënta takk dama ne séq ak jigéen te takkoo ko daganut noté loolu daganut léegi takk nag dagan na li li daganul nag munta araamal li dagan c'est clair alhamdulilah